événement bu nga xamante ni am na muy événement bu capital ngeen ñëw it nag nekk nag ci kër xalif général de Layène Seydina El Hadji Abdoulaye Thiaw bu dee kàddu rek kër gi doy na kaddu bu dee kaddu xalifa bi doy na kaddu bu dee kaddoot Seydina doy na ko kaddu lu ëpp ci vingt ans ci sama xilaafa Baye Raan yal na yàlla yokki leeram laa yore lii di ko dox ba tey loolu lépp wan ni lii téye wala lii ma yor tey jii nag sens de responsabilité la ku fi toog El Hadji cew Thiaw Laye ku ko jur Seydina Issa Seydina El Hadji Abdoulaye Thiaw maay taawam tudd Seydina Issa lii nag dal ci réew mi daloon na fi ci jamonoy baayam 14 Seydina Issa appliqué hadis ba en mu amaat. mu defaat loolu mettre ni en quarantaine ca boobu tubaab yee fi kon nun li nuy wax diine may na nu wax ko ñaareel bet nag réew mi dafa am lu ñu tuddee contrat social la ñu taxawal état et muy la puissance publique ñun ñëpp ñoo jël suñuy force suñuy nangam jox ko nit. kooku am légitimité yore appareil d'état am na loo xamante ni bu neexoon nit ki du tàggu ma sàmba du tàggu ma demb day appliquer la constitution xool ni tey ñu ngi à l'état d'urgence mën na ko oote parce que li problème salubrité la ak ci leneen day dugaat ci ordre public ak ci leneen ak leneen kon kon yoon may na kilifa mu xool fi réew mi toll mu adresser un message à la nation jël ses responsabilités kon ñun ay républicain lañu ci ñaar yooyu la ñuy waxee daanu waxee ci diine parce que këru diine lan nu wax waaye nag daanu waxee tim ci réew lu tax institution yi fi nekk dañoo respecter institution yi teg leen seen place teg leen seen nangam kon fi may tàmbalee li ñuy tuddee jàngoro ji ñi mu dal yàlla na leen yàlla wéru ñi ko jo ñi ko yoragul tim yàlla bu mu egsi ci ñoom mais yàlla yàlla aar réew mi ma commencé waat ci turu nag sama waajur Seydina El Hadj Abdoulaye Thiaw Laye nuyu kilifa diine yi ndax bu nu masaan egsi fii da ngeen daan gis ñu tudd kilifa yëpp ñuy sunuy kilifa muy kilifa diine Sénégal yëpp tey jii lu nu mën a am itam ku rawatina El Hadj Abdoulaye Thiaw dafa bokk réew mi rawatina kilifa diine bokk ñoom lépp kon xew mi ñoo ñoom ñoo ko mas a bokk te noo koy bokk kon ci loolu laay tàmbalee nuyu kilifa diine bi ñaan yàlla sunu kilifa diine yàlla leen fi yàlla yàggal yàlla na leen yàlla téye et puis jubaale nag njaboot yi ñaareel bi muy président de la République xam ngeen ni bu ñu toll woon ba fii tey président bi ñu commencé ba léegi daf ñu accompagner bu état bi ak la doon nangame nangam ba lii egsi ñu ngi ci ak ñun waaw kon nag kooku mënul fee taxaw ay ati at ñuy taxaw fii defe naa presse bi war na gis ñu naan kaan jaajëf diw yaa fi def lii yow yow yow te moo ko fi def tey réew mi am ay gàllankoor ñu mel ni xamatuñu kooku pour de raison lan ñun nous sommes ñaar am nañu taxawaay bu nga xamante ni am nañu ko tey jii ci réew mi tey Sénégal moo soxla tey euh, Sénégal moo nekk ci ndàngam nun nag ay doomu Sénégal lañ lu Sénégalais yëg moom la ñuy yëg lu ñu nangam moom la ñuy nangam te képp ku mën a taxaw xool ñi nga xamante ni tey jii seen xam-xam moom màcceewu ci loolu màcceewul ci loolu sëñ Ablaye citoyen sénégalais la ndax carte d'identité nationale defalu ko boppam dañ ko kaa jox kon problème citoyenneté moo posé wu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi muy royukaay bu mag bi keroog bi muy gàddaay génn war a génn màkk dafa geesu ak màkk wàcc yàlla ne amul benn dëkk bu ko mais tey l' obligé mu war a dem Medina mooy loolu amul fu nu Sénégal lépp lu nga xamante ni dina laal Sénégal dina laal Serigne Abdoulaye dina nu laal dina laal communauté layène te dama yaakaar dina laal ñëpp nag réew mi nag ah noo ko bokk kon moom wax ni mesures yi nga xamante ni moom la état Sénégal yi Sénégal jël teg ci réew bi ñu nekk ci réew di ay citoyen war ci ay nangam amuñu lu ñu ciy teg ca kaw ku ma déglu démb wax naa ko te moom laay répété amuñu beneen mesure bu nangam di def ñii def fii ñii def fii Sénégal du ay principauté c'est un état unitaire lu leer laay wax donc nun nag li nga xamante ni moom la état sénégalais tëral teg ci la ñu tegu ci la Serigne lay teg ku nag taxaw am leneen looy wax libre nga ci ñun duñu dugg ci liberté kenn mais tey yée fii ci kër xalif général de Layène El Hadj Abdoulaye mi ngi fii ci biir néegam defe naa ne kuñ ni sa baay dafa gumba ngay gis sa baay dafa luu ngay wax sa baay dafa dafa laago ngay dox sa baay am na lépp kon nag fii ñu toog tey may dellu di tëje suma wax ni xew-xew yi fi daan am ñu koy def fi mu ñu tudde ko appel ki woote woote bi ba mu ne appel defe naa ni jaamu yàlla mënul nekk ci ñaari fan déedéet bu dee ñu at mépp ñaari fan nga ciy jaamu yàlla seetal sa bopp waaw te dim ñun ñëpp ñoo d'accord ni nanu xool benn bit jëm xib la jëm feneen foofu tëj seeni nàngam kon nag nun duñu mën a lu dul tënku ci diine may nañu li ñu def tënkut ci suñu réew en tant que citoyen sénégalais may ñu li nu li ñu def kon dañuy ñaan yàlla ci ak mbaaxam yàlla na dal gën a am ci réew mi yàlla na jàmm gën a am ci réew mi kilifa yi moo xam ci lépp suñu réew daal yàlla yàlla gën a dëgëral suñu cohésion gën ñoo dëgëral nag su ma ko waxee dinaa wax ni nañu gën di privilégié li ñu tuddee citoyenneté réew mi soxla na lool réewum Sénégal laa ni réewum sénégalais yi la réewum sénégalais yi la bis bu ñu bëggee nag continuer nekk fi nous sommes nangam quatre-vingt-quinze pour cent de nàngam ñi si des nangam ndax nañu suñu bopp ñi si des ay sénégalais la ils sont là église bi ay sénégalais lañu comme ñëpp keneen sax ay sénégalais lañu comme ñëpp na mu amee feneen lëkkum diina kum waliya diin këri diine yi nag wenn say la mag ñu baax ñii doon na tey bàyyi fii ñu fi bàyyi héritage bi ñu fi bàyyi alhamdulilah rabbil alamin gëm nañ ni bu ci Sénégal téye dëgër ci te kenn doxul seen diggante li ñu yor mën nañoo teere fu gën kon nun loolu laay wax di di di di nag gërëm balaa may dem fenn mooy ñi ngeen gis may liggéey ak ñoom mooy le groupement central le comité gaa yaa ngi nii teg ceet su may rakk ngi nii ñoom jàll ngi nii ñeneen a ngi fi bàyyi mu joon sànq la fi jógee ñeneen a ngi fi ñeneen a donc mun naa ni famille la sëñ Mamadou lamin macha allah waroon naa ñëw dafa am gàllankoor ci sunu biir kër moo tax gis ngeen yëf yi ni mu yéexee kenn koo xam ne bàjjen la ci ñun moo fi jóge te yàlla na yàlla ah yokk ka ay leer loolu nag bu amee il faut que yu mel nii mais ñun ñoom ñëpp volonté bi ñoo ko bokk bu biig ci guddi ñu ngi fii ko coordonné nangam wax leen ni kër gi coow amu fi xam nga lan la xalif général a ngi fii toog muy El Hadji Abdoulaye Thiaw Laye ñun ñii ñooy njabootam amul ñaar ak ñett genn njaboot rek fi nekk nag na nit ñi yóbbu loolu kër Laayeen amul ñaar amul ñett amul ñeent genn kër la njaboot gaa ngi nii naka ñëpp yóbbu li ci des nag problème autorité duñ ko wuti fenn am nañu ko mu ngi fii ah lu ñuy partagé wu la nag lu ñuy partagé wu du nii ay dictateur nii rien du tout defe naa ni gars yaa ngi nii ñu fi wax dañ koy toog di ko waxtaan du ñu imposé kenn na lenn lenn da dinaa ko imposé nit sama kàddu waajur nag kenn du ko yàq ma lay xool déedéet foofu la nekk te nag kàddu Serigne Ablaye mooy intérêt général mooy intérêt général dama bëgg ñu insisté ci bu baax a baax may profiter vraiment ci occasion ak li fi jote jaar ku ne gis na taxawaay boo xam ne le pouvoir public taxaw nañ ko ci ci kër gi ci événement yi bu amee exceptionnellement ren mu am fi moo wax leen ni bi ñu tàmbalee ba léegi ak le ministre l'intérieur ma koy gërëm bu baax moom itam jokkoo nañ ci yu baree bare baree baree baree baree baree baree baree ba avant yëf yi di ñëw ak nangam ah daañu jokkoo ak ñun daañu jox sax mais kenn duñu imposer xalaat amul mais dañ doon weccante ay xalaat ci lu rafet mais lépp nag mu war a jëm ci intérêt national u Sénégal dëgg dëgg ku wax Seydina Limaamu mënoo jël allahu partagé wu ko ak nit ñi mel na neen te yi kenn melu fi lenn kenn mënul lenn yàlla mel moom man foo ko loolu war fee mën a nekk kon nu ngi gërëm ci seen kanam yéen ñëpp ñi nga xam ne ñoo laa bokk liggéey bii muy groupement centrale la fédération des daïra mais profité ci nag gërëmit communauté bi ndax taxawaay yi ñu am ñoom ñëpp moo xam ñi nekk ci biir Sénégal commencé ci représentant xalif bi ñu ne ci alti ci dëkk yi boole ci suñu imam yi booy suñu chef de village yi boole ci boole ci suñu dëkk yëpp nu ngi leen di gërëm di leen sant ak ñi ne bitim réew lii ñun ñoom ñoo ko ñoo ñoo ñoo ñoo ko bokk ah nëga ni daana fekk ñuy nef ci nangam mais lii nag moo soob yàlla ñun li ñu doon jaaxal nit ñi li bàyyi lay santaane mooy dafa lu mu fi jàngale sëy naa limaamu yàlla rek la ñu jox bis bu ñu demee nag ba tegg suñuy tànk ci yàlla nu nag suñu bopp la moom yàlla la ñu jox bis yi yàlla amul ñaari fan ak ñetti fan yàlla bis bu jot la appel mooy zikra fa inna zikra tan fawul muminin wax doowu nekk foofu la affaire bi ne bu dee nag yow yàlla ñaari fan nga ci am ci at mi seetal ñun nag bis bu jot la ñu bëgg am yàlla. ubbee ni état sénégalais wax na du ñu jël kàddu état teg ka ci leneen ki ko génne institution la yoon may naka loolu ay citoyens sénégalais lañu lii état bi rëdd dama ni ci la communauté laayeen teg seen tànk renvoi ak report la ba keneen jusqu'à nouvel ordre ba ni ko gouvernement bi allahumma salli ala sayyidina